ki koy denc aussi di ku baax bokk ci dëkk bi di njabootu ñëpp euh, di Sénégal Bougane Gueye dani moom mooy Sénégal looloo tax ñun aussi muy suñu njaboot te mu wax yéen a ko dégg xam naa jafe na Bougane di tontu mais dégg ngeen lu mu wax ci rajo bi suma diggante ak moom lu sincère la euh, suma diggante ak euh, Momy Dany Gueye mi nga xamante ni moo fi bàyyeekoo lu sincère la suma diggante ak Wally Seck lu sincère la. parce que du lu ma war ñoom ñoo ko sàkku parce que ñoom ay nit yu ma fonk lañ ma fonk leen moom i nag dafa particulier woon ci man ndax moom i a su cacher ses relations a su cacher son amour envers peut-être ñu bari ba kenn xamalu ko dara benn nit bu doy waar moo dem ci Sénégal nit boo xamante ne euh, mën naa ñaanal ñëpp mënoon na ñaanal parce que jigéen bu sell la donc ñun depuis hier on a été très affecté moo tax gisuleen ñu dem ba léegi parce que fii mënuñu fi woon ñëw moom waaw parce que ni nga koy yëgee la yëg-yëg la ñoo ngi jaale Bougane eh, suñu doom di jaale Wally Seck suñu doom di jaale Fatou Kiné Diouf jaaga eh, di jigéen ju sel di jigéen ju baax mën naa jur tey ki ñuy wax ci Sénégal ki ñuy wax tey ci senegal ni moo dëdd Kiné Diouf jaaga mën na ko jur kon yàlla na yàlla defal ko àjjana firdawsi asalaamaaleykum wa rahmatulah. yu métti yi nga xamante ne amal nga ko ci biir Zik FM loolu. ci mais c'est normal loolu xëy na peut-être sax jooy nit ñi dégguñu ko mais li ma wax léegi la xam nga nit boo xam ni boo amee yëg-yëg ci yow moo lay woowoo di la ko waxal boppam moom it sori na ci man ñun xam nañ man xam naa li ma wax moom it sama xarit la sama doom la daf ma bëgg te nit ñi musuñu ko xam nit boo xamante ne daf laa maman su ma feebaree su ma xoolee sa sa vidéo reetaan sama xol sedd ok sori na ci man mais yàlla mooy dogalee noonu ñaan bañ am émotion moo tax. dem ba léegi ñëwuñu fii taxaw parce que tamit émotion yooyu moment yu dur la nga vivre ko sel mu jàll moo gën nga ñëw taxaw mais wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla na coonoom yem ci àdduna. waaw xam nga naqar dab na ko ci yoon bi li ci des naqar dam na ko ci yoon mais li ci des yàlla na ci def ndam incha allah li ci des yàlla na ci def ndam حبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي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 tey ko bis di nuyu. sëñ Mbacke am na keneen ku leen koy nettali lii may wax la ni mën na koy nettali jox suñu président yi kenn moo woote. kuréel leen si loxo ni ko président ne yi kenn moo woote. ma ne nañ gëm ma génn maag Bougane bàyyi président ba ak Lamine Faye ak daal joxati taxaw. daal sëñ Mbacke ñaari sama soxla ma ne ko bu ñu paree léegi ne sëñ mu ñaari leen di jox suuf paree téléphone Abdoulaye Wade gi ñëw leen bu nga am gàddoy dossier te ci ginnaaw sëñ Mbacke ma ne ci loxo càmmoñ bu nga am nekk ci loxo liggéey sëñ Mbacke Lamine ak conseil suñu soxla ci ginnaaw bu nga am yor ay dossier ba jàll mu ne damaa bëgg. fii Abdoulaye Wade tibbee ndam nañ ko mu tibb foofu fekk dossier yi ko daan yoon ñu ko jox président Abdoulaye Wade ñu ko dama lay taalal sama loxo nga ñaanal loolu kenn tiiw ma بيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسلمي بي قريب حرس قامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أدرك محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم طائر يتشفع لا إله إلا الله لا رسول الله أتيت بالسلوي بيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع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 أتيت بالسلوي بيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع والكلم خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا